bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim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 ñu ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yatakabbala minna wa minkum saalihul amal ñu di leen wax ne jumaa tayba mubaarak yal nañu ko fekkee ay ajjuma yu bari yàlla bu mu doon suñu mujjanteelu ajjuma yàlla ko yàlla def mu doon suñu mujjanteelu ajjuma amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot am ngeen ne bés ni tey bu jotaan ndéem soob na suñu boroom dinañu fas yéene wéttalantek mbokk yi lenn ci ngénneelu bés bi am ngeen ni bés bi daldi bés bu am particularité ci semaine bi ñu di ko wax yowmul jumaa mooy bésu àjjuma bu ñu ne nag ñu ne bés bi nga xamante ne moo jiitu alxamis waaye gannaaw si samedi ca la tegu dimanche ca la tegu muy gaaw ak dibéer su ko defee nga am ci altine de bésu talaata ak bésu àllarba ba keroog ngay amaat beneen bis ni alxamis kon ñu ne bés boobu di yowmul jumaa bu teroo dina am lay xew loolu di xew nag xew-xew bu mag la ci jamono xew-xew ba yàlla xam dayoom la moo tax buur yàlla moo njëkka a woote wane importance su bés boobee ak màggaayu bés boobee ba tuddee nañ ko saar ci saaru alquraani 114 suuraat ya nekk ci alqur'aan bés ni di yowmul jumaa mennum bés boobu rekk moo ci am saar bañ ko tudde te mooy yowmul jumaa mooy saar bu tudde saaru ajjuma mbokk yi yann jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot buñ demee xool ci saar bi dinañ fa fekk buur yàlla muy woote woote bu am solo waaye nag ci biir woote boobu ñamuy woo ak ñan lay woo ak fan lañ leen di woo ki ko bëgg a xam nag ñu may nopp ci waxtaanu fajar bay jaar ci réew mi FM 97.5 incha allah ñu daal di leen ko tegtal mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot saar bañu ñu suuratul jumaa muy saar ba tuddee bés ni ki tey di bésu àjjuma ku dem ci alquran dinga ko fa fekk saar bi tàmbalee yusabbihu lillahi maa fi lsamawati wa maa fi l ardi almaliki alquddus alhakim bi keroog saar bi di ak fañ leen bëgg ni mu tombek woote borom bi subhaanahu wa taala yi buur yàlla tabaraka wa taala ngi nii di jeexale saar bi ci bu mag ba mu woote ñu war ko wuyu ci woote boobu mu woote mu ne ñu yaa ayyuha alladina aamanu ida nuudiya lissolaati min yowmi aljumuati fasaw ila dikri llahi wa daru lbaya dalikum xayrun in kuntum taalamuun fa ida qudiyat alsalaatu fantashiruu fi l ardi wabtaguu min fadlillah wadkuru allaha kathiran laallakum tuflixuun wa ida ra'aw tijaratan aw laxwan infadduu ilayha wa tarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi xayrun min allaxwi wa min altijara wallahu xayrun raziqin sadaqallahu alazim mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot buur yàlla tabaraka wa ma wàcce téere bay wane doomu aadama bi nu mu war a doxalee ci kaw suuf si waaye ma wàcce téere bay wone ne yow jullit ba gom yàlla noo war a doxalee yowmul jumaa buur yàlla moo la baaxee aaya bi nga xamante ne moom lañuy ñuy yëkkati nii sànq bés àjjuma bés ni ki tey buur yàlla ngi nii di woote kon na ko ñépp may nopp bàbbeeku fas yéene dem wuyu lamuy woote ak namuy woote ak fan lay woote yàlla ña muy woo mooy ñu gëm yàlla ñu gëm yàlla critère gëm yàlla mu bokk ci ñu gëm yàlla bañ koo bokkaleeg dara waaye nga gëm yàlla anam bi nga xamante ne mooy arkaanul iman sitta ponk ngëm yàlla yi yonent bi nee na salaa sallam juróom benn lañu nga remplir critère juróom benn yooyu te nga wéttali yàlla ci lamune ne loolu mooy melokaanam yi nga yem foofu kepp bañ ko utal lenn lay jóge ko ci xalaat walla ci xel lamu mooy turam yu sellam yi nga yem fuufur képp rekk moo ne dala ne walillahi l asmaul xusna faduuhu biha ñeel na yàlla ay tur yu bari te sell jekk rafet na ngeen kawoo ci tur yooyu te xamal nañ ñu ko nga bañ a créer weneen tur ba wutek lañu yonentu bi ne noonu la yàlla ne yooyu dañoo bokk ci turam yi nga bañ a sa bopp beneen tuur ba yonent bi jàngale bul xeeb njàngale yonent bi ci tuuru yàlla yi ba tax na ngay créer sa bopp beneen tuur bu wuuteeg la yonent bi xamle nga gom yàlla gom yàlla bi mel nga gom yàlla ci màndara gam ne noonu la mel wala noonu la turam yu sell yi lambo nga yem fuufu bañ a utal leneen feneen nga di ko taafantaloo ci borom bi képp ku gëm yàlla gom yàlla bi ni mel yow yàlla woo bisu àjjuma nga fas yéenee dem wuyu woote boobu te moo ne mbokk yi buur yàlla neena na képp ku gëm yàlla gëm yàlla bi ni yow la convoqué yow la jox carte de l'invitation bi nga xamante ne yaa war a mën dem teewee appel bi nga xamante ne moom la budu yàlla woote ya ayyuha alladina amanu kon képp ku am carte d'invitation bi nga xamante ne mooy carte iman bi taqatu iman yow yaa war dem ci séminaire boobu séminaire bi nag ñu ndegem jam ñaajo lay xewee kon képp ku di ajigam gëm yàlla yaa war a dem wuyu séminaire boobu séminaire bi nga xamante ni suñu kilifa yi daara yi ñoo ko woote ñoom miñu ñu nampatal lañuy def nii nga am ci suñu imam du imam Ahmad Dam xafizahu llahu waraahu yal na ko yàlla aar wattu ko ak suñu imam ustaas Alioune Sall xafizahu llahu waraahu yal na ko yàlla sàmm aar ko ak suñu imam Serigne Hadi Niass xafizahumu llahu waraahum waaye ñañu bokkal ci kër gi ñoom ñu bokk ci woote bi di imaam ustaas El Hadji góor a jóob xafisahullah waraahu ak ñoom imam libaas jiin ak ñoom ustaas maas jëy ak mboolem asatija yi nga xamante ne bokk nañu ci taxawaayu nampatal tu tànk yi lépp li nga xamante ne mooy ngoom yàlla boobu noonu ñuy waxtaane nii te yàlla woote ko waaye suñu seeduñu daara yi ñu tudd ñu woote ko ci la nga xamante ne mooy solidarité ba ñu war a jëmale ci lépp loo xamante ne mën naa nekk jàppalante ci diggante jullit ñi waaye ngom yàlla dong ka lal ñooñu la yàlla woo ci séminaire ba nga xamante ne moom lañ leen doon waxtaanal ni yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla bokkaale wu leen yàlla dara amul dara li ngeen dendalek yàlla ci lenn yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla gëm yàlla wini yàlla ne kaay leen invité naa leen ci séminaire bu mag ba ma bëgg a waaye képp kuy ñëw na nga àndiwaale bitaqatul iman na nga àndiwaale carte d'invitation bi nga xamante ne mooy sa carte ngëm yàlla yàlla ñëw nañu wuyu nañu ci woote ba ñu woo ci séminaire ba nga xamante ne moom nga ne ñu wuyu si la ñëw nañu yaa ayyuha alladina amanu gaay dem nañu wuyu la leen yàlla woo ak fam leen di woo yaa ayyuha alladina amanu yéen ñu gëm yàlla wuyu si ngeen yàlla ca lam leen di woo bur yàlla ne discours bi mooy ida nuudiya lissolaati min yowm al jumaati bu ñu wootee noddu bu noddukat bi yëkkatee noddu bésu àjjuma noddu bi nga xamante ne day wax màggaayu yàlla wax ne mu ngi seede ne amul benn buur bu fi nekk ñu di ko jaamu ku dul yàlla muy wax ne maa ngi seede ne yonent dëgg la yàllaa ko yónni mu teg si ne kay leen ci julli bi nga xamante ne mooy la leen di jokkale ak seeni borom mu teg si ne kaay leen ci texe bi nga xamante ne du ngeen ko amee ci feneen du ngeen ko amee ci neneen lu dul ci julli bi mu teg si ne yàlla moo fi nekk di buur bu mag yàlla màgg na mu répété màggaayu yàlla ñaari yoon mu daldi tëjee nodd bi ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ko yàlla baat bi buñ ko yëkkatee bésu arjum mu ne ida nuudiya bu ñu noddee ñu convoqué leen yàlla dafa convoqué way gom ñu wuyu ko mu ne leen bu dee noddukat bi noddu na woote wat na bésu àjjuma yàlla ne fas aw na ngeen bàbbeeku fas aw na ngeen préparé na ngeen waajalal seen bopp fu ngeen di dem ak la tax ngeen di préparé mooy ila dikrillah dem ci tudd yàlla dem ci tudd yàlla mooy dem ci fàttaliku yàlla dem ci julli wazarul bay'a ngeen tegandi jaay ak jënd ngeen bàyyi jaay ak jënd zaalikum la lakum loolu mooy li gën ci yéen in kuntum taalamuun ndegem xam ngeen ko aka neexoon ngeen xam la ci bu ñu noddee ngeen dem wuyu fañ leen di woo ak ci lañ leen di woo ngeen tegandi jaay ak jënd te loolu ñu leen di woo mooy julli yàlla nee loolu ngeen di def noonu zaalikum xayrun lakum loolu mooy li gën ci yéen in kuntum taalamuun bu dee xam ngeen ko kon bés ni bu buur yàlla dogalee mu doon bés bi nga xamante ne mooy bésu àjjuma buur yàlla nee na képp ku dégg nodd na nga tëgg di njaay ak jënd nga dem wuyu lañ lay woo ci nodd bi te mooy julli tëggandi njaay ak jënd boobu ak dem wuyu la noddukat bi di woote yàlla nee na loolu mooy li gën ci yéen bu fekkente ne xam ngeen la ci nekk ci xeetu njariñ la nekk ci dem wuyu la noddukat bi di woote te tegandi jaay jënd mooy li gën amaana du ñàkk mu am kiy laaj ana la fa nekk li gën jaay jënd ñu ne kooku noonu la nekk ci dem wuyu la noddukat bi di woote la fa nekk ci ngëneel mooy yàlla mi yore barke yàlla mi yore jarle yàlla mi yore bénéfice yàlla mi nga xamante ne moo yore mbootu njaay sekere njaay ndegem lim la digal ni loolu nga def bu la roofalee sekere njaay walla sekere njënd wala barke meññee ci la ngay jaay wala ca ngay jënd bu la ko yalla yenkee wale barke bi daal law ci loolu ngay jaay wala ci loolu ngay jënd parce que da nga remplir yam la tëral ne bu ñu noddee bésu arjuma na nga tegandi jaay ak jënd bàbbeeku waajalal sa bopp dem wuyu ca lañ lay woo loolu mooy li gën ci yow ndegem xam ngeen ko ndegem yàllaa xam li gën ci doomu aadama bi fekk yaa ngi respecté lala yàlla wax ne bu ñu noddee yomul jumaa na nga dem ci julleekaay bi bàyyi jaay ak jënd loolu mooy li gën ci yéen ndegem xam ngeen ko fekk ñu ngi respecté condition mbeg critère bi yàlla mun nañoo yënkeewal barke boo xamante ne ki dëgër bopp bañ a bàyyi jaay ak jënd ngir barke booy am wala ngir bénéfice bi ngay am ah yàlla yore bénéfice yàlla yore barke boo roccee barke beeg bénéfice bi nga war a am ci li ngay jaay ak jënd parce que da ngaa bañ a condition yom la tëralal doo ci mun dara waaye yow mi ko remplir tamit ah boo ko gisul bul ne ah man remplir naa condition bi gisuma ko déedéet na yaa xamut na ko gisee waaye yàlla moom moom du wuute ak lu mu dexalante doomu aadama yi moo tax mu ne ñu inna allaha la yaxlifu almiaad yàlla du wuute dexalante ba mu dexalante doomu aadama yi yàlla ne ndegem xam ngeen ko na ngeen tega di jaay ak jënd loolu mooy li gën ci yéen bu fekkente ne xam ngeen ko waaye julli bi nag benn laps de temps la rek waxtu su gàtt matul sax une heure de temps waaw yàlla nee na bu ngeen joxee julli bi fa ida qudiyati salaatu bu ngeen joxee julli bi ba pare ba noppi fantashiru na ngeen tasaaroo fi ardi ci kaw suuf si taxu ngeen continuer di sàkku di ut min fadlillah ngeneelu yàlla baleen yàlla tasal ci kaw suuf si te mooy wërsëg kenn ku nekk na dellu ci liggéey kaayam boole ko ko wadkurullaha kathiran di tudd yàlla lu mu gën a bëree di julli si yonent bi salaa salaam lu mu gën a bëree waaye di jàng alquran di fàttaliku yàlla yàlla ne bu ngeen nekkee ci anam bi rek mooy laallakum tuflihun amaana ngeen dajek texe bi nga xamante ne waajalal naa ko képp ku nar a remplir condition ya nga xamante ne moom laa tiral nii yàlla ñu yàlla kàttanal ñu mën a jëfandikoo la nga xamante ne mooy ngéneel ba nekk yowmul jumaa mbokk yi lii lenn la ci melokaanu yowmul jumaa di bési àjjuma su ko defee nañ leen ko bàyyi xel bés ni ki tey ndax bés bu màgg la bés bu am dayo la fa yàlla bés bu yàlla jox gëdd la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñu baaxe mu ne ñu bokk na ci sunnay bis bi moo nekk min sunnanil yowmul jumaa bokk na ci sunnay yowmul jumaa mooy hygiène ba ñu yonent bi bugg tegtal ni sallallahu alayhi wa sallam moo ne juróom-ñetti buntu la juróom-ñetti buntu yi yonent bi nee nañu mooy sunnay yowmul jumaa mooy sunnay bisu arjuma buñ ne sunna nag mooy la yonent bi jàngale bàyyi ko fi te jullit bu nekk war see war a mën a nekk ndax sunna mooy la ñu firil alquran kon yonent bi lépp lu mu jàngale jullit bi da ko war a mën a nekkee pour nekk ci gaay yi nga xam ne dañ naan lii sunna la du farata man du ma ci sonn du ma ci tay duma ci xuus déedéet pour sa bi mun a jekk mu mun a ñoŋ il faut nga toftal ci sunna bi waaw moo tax mu ne ñu min yow yawmil jumaa melokaan ba yonent bi bugg tegtal ni dafa bokk ci sunnay bisu ajjuma bu ci jiitu mooy ay iqtisaal al iqtisaal mooy càngat war a sangu yow ku góor sangu set yow ku jigéen tamit danga nga war sangu sangu set mooy sangu janaaba waaw amaana du ñàkk ko laaj mu ne waaw mais man aw ma jabar may lu tax may sangu set ñu ne la ndigle la dafa bokk ci sunnay yomul juma dafa bokk ci sunnay ajjuma ñàkk am jabar ñàkk am jëkkër du tey bésu ajjuma doo sangu farata sangu farata mooy sangu ba sangu set dafa bokk ci sunna yi yowmul jumaa boo ko defee sa ruux day laab sa yaram day sell waaw ñaareel bi mooy attak attabakkir ilal masjid ngay teel a dem si jàkk ji teel a dem si jàkk ji waaw loolu tamit dafa bokk ci sunnay bés yowmul jumaa di teel a dem si jàkk ji balaa imam di ñëw ngeneel ya fa nekk bari nañu lool waaye yow teelal dem rek boo teelee dem du ñàkk nga manqué ci teel a dem jàkk ba ngay def ci yowmul jumaa yiw bu ci nekk la la koy tax a mooy teela dem ci jàkk moo tax mu ne at tabakkir ilal teel a dem ci jàkk ji dafa bokk ci sunnay yowmul jumaa ñetteel bi mooy atatib atatayib mooy ngay laal parfum xeetu gétt yu neex yoo xamante ni islaam dagganal na pour jullit bi di ko jëfandikoo bésu àjjuma mu nekk xeetu gétt xeetu euh, parfum mu nekk xeetu euh, xeet bu neex bi nga xamante ni ndegem dangay dem ci mbooloo bi mbooloo boobu ngay dem nag dafa war nga yóbbaale xeet bu neex bañ fa àndaale xeet bu naqadi waaw boole ko xet bu neex dem ci jàkk ji loolu dafa bokk ci sunnay bisu àjjuma mu doon bis ni tey bokk na ci ñeenteel bi mooy qiraatu suuratul kahf di jàng alquran suuratul kahf mooy dix-huitième saar ci alquran quran cent quatorze la waaye dix-huitième saar bi mooy suuratul kahf mooy alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaaba wa lam yajcal lahu iwajan waaw bi keroog saar bi di jeex nga daldi di jàng saar boobu tiyaabo la bi nee na képp ku jàng suratul kaf arjuma bi ba beneen arjuma di ñëw dañ lay monte leeru alquran leeru ragal yàlla leeru ngëm yàlla waaye leeru alquran ci boppam lañ lay montel waaye leer ba saar boobu tamit ëmb dañ la koy montel ba beneen arjuma di ñëw kon bu duwutoon njàngum suuratul kafi wala njàngum alquran ci bésu arjuma leeraay boobu noonu xamuma noo koy amee bu dee du njàngum alquran ak njàngum saar boobu ci bésu arjuma bu dee leer boobu ñu ne dañ la lañ lay montel bu dee dañ la koy jaay noo koy jëndee est-ce que di nga am xaalis pour jënd ko tontu bi kenn ko nekk na ko xool kon bés bi bés bu particularité la ci jullit bi su ko defee na jullit bi xam loolu ñeenteelu point bi mooy jàng suratul kahf comme niñ leen ko waxee waaw bokk na ci juróomeel bi mooy lubsu ahsanu siyaab nga sol yére bu taaru yére bu rafet ñu taamu ci nag yére bu weex waaw bu fekkente ne leneen am na na ko jëfandikoo na seet na laab waaw doon yére boo xamante ne dina sutura sa cër yi su ko defee nga bàyyi ko xel dafa mel ni rek kenn ci gouvernement bi bu la woowee nga war kaa dem wuyu nooy solo wala mu mel ni kenn ci sëriñu diine yi suñu sëriñu diine yi ñu woola booy dem wuyu noy solo doo sol n'importe quel yére waaw solul ba a gis ni na xam ne kii daal fu muy dem fu mu fonk la te ku muy dajal ku mu fonk la tamit kon yowmul jumaa yow jullit bi tamit day solo solin bi ni mel képp ku la gis ngay dox ci mbedd bi dina xam ne fa ngay dem fu la ñor la ka ngay rencontreel ku nga jox gëdd ngir nanga mel ci melokaan ñu gis màggaayu bés boobu ci sa colin ñu gis màggaayu bés boobu ci sa comportement su ko defee noonu jullit bi mën a xam jullit ñi de seen bés bi dañ kaa jox gëdd dañ kaa respecté bokk na ci waaw juróom-benneel bi mooy bokk na ci kasratu salaatu ala nabi li ngay bëril di julli sinant bi di wax ne allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin kama salayta ala ibrahim wa ala ibrahim allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid ak yeneen format ya yonent bi jàngale xeetu salaatu ala nabi bari lañuy julli sinant bi ndax moo ne inna afdalu ayaamikum yowma aljumaa fa aksiru alayya min alsalaati fiihi fa inna salaatakum maarudatun alayya sallallahu alayhi wa sallam nee na bés ya gën ci bésu àddina yay ñëw di fenk di jaar di dem bés ya ci gën mooy bésu àjjuma waaw mu ne ñu nag maa leen di sant maa ngi leen di ñaan maa ngi leen di ñaax di leen digal ne fa aksiru min alsalaati fiihi waaw na ngeen baril ngeen julli ci man fa aksiru aliya min alsalaati fiihi bari leen la ngeen di julli ci man fa inna salaatakum ndax julli boobu ngeen di julli ci man mooy ñaan bi ngeen may ñaanal yàlla ma maarudatun alayya dañ ma koy gaaral dañ ma koy andil mu doon kado ba nga xamante ne ci yàlla yay jóge ko mu ñëw ci man sallallahu alayhi wa sallam lii la ñu bés ni ki di yomul jumaa mbokk yi ah, juróom benneel bi mooy asiwaak asiwaak mooy soccu del bomb sa bëñ raxas sa gémmiñ ak soccu loolu dafa bokk ci hygiène ci cet ci laab bi nga xamante ne jullit bi war na ko war a mën a def bésu àjjuma di yowmul juma muy bés ni ki tey waaye la ko juróom ñetteel bi mooy lu ko jeexal mooy taxarri saatan istijaaba nga géem a góor góorlu bàyyi xel nga am xemmemteef yàlla boole la nga dajeek waxtu yu nangu ñaan ba nekk ci bés bi ndax yonent bi nee na am na waxtu bu fa nekk kenn xamu ko waaw yàlla rek ko xam waaye waxtu woowu de jullit bi du fa toll muy ñaan yàlla lu dul yàlla dina ko may la muy ñaan kon ndegem yow xamoo ban waxtu la xamoo ban moment la yow bari la ngay ñaan ci bés boobee waaw jullit ñaari raka sa kër ñaanal yàlla bala ngay dem ci jàkka ji ñaanal yàlla boo nekkee di dox di dem ci jàkka ji na ngay ñaan yàlla ci jamono ba ngay dox boo demee ba dugg ci biir jàkka ji nuyu jàkka ji mooy tahiyatul masjid toogal tàllal sa loxo ñaan yàlla après julli bi nanga julli yeneen ñaareen rakk ñaan yàlla waxtu bi yëpp bésu àjjuma ci boppam na ko dëkkee di ñaan yàlla amaana nga tombe waxtu boobu yonantu bi ne waxtu bi de bu la ko yàlla mayee ba nga tombee waxtu woowu lépp li nga ñaan yàlla dina la ko may yàlla ñu la boole nangul lépp luñ ko ñaan ci bés bi amin ya rabbal alamin mbokk yi lii mooy la leen réew Rewmi FM àndil ci waxtaanu fajar bi ci yomul juma bés ni ki tey lu jub ci kàddu gi ñu sante ko yàlla lu si dégg ñu ngi koy jéggalu di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla boo dee jéggal amin ya rabbal alamin yàlla ñu yàlla may dégg ak topp waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fa ñu war a yëkkatee jotaay bi ñay xibaar ñu ngi ni taxaw ñu fas yéene leen jébbal béréb bi nasaluka allahumma an taqabala minna wa minkum salihal amal allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulaata umuurina